nous avons une sommation avant le 7 août Une sommation bi dafa tel ñaar contexte bi contexte. Nous 10 jours xanaa nous yor déplacer en 10 jours Nous nous dans une situation de crise économique nous xam nañ le Sénégal et Sambini nous ku Covid 19 Nous fay Nous ñun tal nous ñu nous coronavirus.

ken defu ko fi demandé wuñu aidu état defuñu defuñu benn ben ben ben demande ci état lepp luñ fi def dañ ko def de notre propre moyen sans l'aide de personne nit ki mëno ko jëlé fenn te doo ko yóbbu feneen même sa locataire sax bu fayul six mois bokoy koy kër yi di ko may délai bu gudd pour mo am fenen fu mu dugg bu mu dëkk saxantuma laak ñoo xamante ni dañuy contribuer au développement de ce pays dañuy apporter des milliards et des milliards de chiffres d'affaires euh, à l'état du Sénégal parce que l'auto, yi si a 2 millions de fay douane calculer loolu sur tout le long de la VDN il y a des véhicules qui sont a nous importons des voitures récentes nous ñoo fi andi Sénégal ku un budget ba budget 3 millions am nous avons démocratisé démocratiser la vente de véhicules au Sénégal C'est ce que nous avons fait. a santé beneen bi ci topp mooy vous da ngay jël 2 millions mais vous les leer na bénéfice donc. Nous, notre premier plan, c'est contribuer au développement de ce pays avant notre propre intérêt. Donc, nous ne pouvons pas beaucoup ci réew mi. Léegi ñoom nee na dañu fiy jëlee ñu ne leen léegi dañu leen ci fiy jëlee amul problème wax leen ñu fan ngeen ñu yóbbu bu dee am nañ ko bu dee am nañ ko nañ ko aménager ñu yóbbu ñu fa ñu soog jël fii mais fii mënuñu fee bouger te amuñu feneen fu dem parce que oto yi ñun yoruñu ay marchandises 750 francs yoo xamante ni moom la jaaykatu bitigu mbagg yor ay valeur lañ yor te valeur yi mënuñu koo arrière fi, te amuñu fenen fuñ ko garé gis ngeen auto parking bi rek li fi garé ci ay auto kèn xamul lu mu toll plus de 400 millions mu ngi fi garé donc auto yi fan nga koy yobbu garé ko fa fan lool moy suñu principale préoccupation budul loolu amuñu fenen fuñu yobbu pourquoi pas ñu woñu ñu tok toog waxtaan autour d'une table ñu trouver des des solutions consensuelles comme ça ñun ñëpp ñu gis ci suñu bop mais pas ñu ñëw rek né un bon jour un sénégalais lambda qui a tout laissé

kon buñ ñu fiy jëlee ak li nga xamante ni moom la ñuy représenté fii ci dëkk bi au moins war nañu mën a woo waxtaan ak ñun waaw waxtaan ak ñun lan moo si suñu xalaat ci loolu d'abord mais defuñu loolu dañoo jékki-jékki rek ñëw indi seen sommation ne la set la set la set noon daal la demee mais li nga xamante ni daal ñun li ñuy wax mooy pour l'instant même bu ñu fekkee ñëw jël di di di déguerpisser parking yi wala dara oto yi fii lañ koy teg ci kaw VDN bi ndax oto yi ñun amuñu fenn fuñ ko yóbbu li nga xamante ni nag moom lañ waxante woon ak état ñun respecté nañ suñu part ba mat sëkk état li nga xamante si nii moom la waxante woon ak ñun état ñi ngi koy ñaan mu respecté loolu ak ñun ndax ñun dañuy am lu ñu représenté fii ci dëkk bi fii parking bu fi gën a ndaw boo fa xoolee boo fa demee li fa nekk ci li nga xam ne moom lañ stocké ci oto mat na trois 300 millions wala 400 millions fii emploi yi fi nekk minimum mat na dix mille emplois yoo xamante ni ñi ngi ci VDN bi fii VDN booy xool plus de cent concessionnaires ñi ngi fii ci VDN bi ak yeneen activités yoo xam ay lavage ak yeneen ak yeneen mécanique lépp ngi fii ci VDN bi kon ñun ñi nga xamante si nii état ñoom la war a gën a respecté fii ci Sénégal gën leen jox cër gën di waxtaan ak ñoom ñun ñoo ci war a jiitu ndax ñun dañoo jóge extérieur partout dans le monde indi li ñu yoroon lépp suñu xaalis tubaab yi soxla ko nag di ñu woo seen pour ñu investir fa ñu bàyyi fa loolu lépp daw si ñëw Sénégal Macky Sall moo ñu woo pour ñu ànd liggéey Sénégal looloo tax ñu indi fi lii ñu fi indi ñëw investir ko fii mais nag un jour viendra bu ñu demee ba nga xamante ni dañoo bëgg a jaay doole nag ba ba ba nga xam amatuñu solution bu boobaa ñu takk suñu liñ yoroon yëpp ànd ak ñi nga xam ñoo fi nekk ànd dem ci réewu tubaab yi investir ko fofu créer fay emploi parce que gis nañu Sénégal moom peut-être da koo mérité wul.